jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokk yi euh, fan yi gis ngeen benn xale bu jigéen buy génn naan dafa am benn sëriñ bu ko takk euh, takku suuf coow la yaakaar naa bëri na ci internet bi ndaw si sax mi ngi saaga ay ndey ndaw si mi ngi wax wax ju ñaaw ju ne loolu bokk na ci li gën a yokk tax tey ñu fekk si borom xam-xam bi nga xamante ni mooy Serigne Mara Seck muy kilifa di jàmbaar di ñaankatu yàlla war koo laaj ndax takk jabar takk suuf ci ab sëriñ ndax dagan na wala ah, daganul danañ ko ci laaj ah, wala bu fekkee ne mbir ma ay sos la wala mbir mi ah, dañoo yebal ndaw si wala dañ ko yónni danañ ko ci laaj ndax sosal sa nawle tamit am na solo rawatina jigéen tey danañ waxtaanee ñaan yàlla mbokk yi kii kilifa la doomu Tiwaawan la kii Tijaan Piir la. waaye mbokk yi ku mën a ñaan nga nii waaye ku ragal yàlla mu nga nii toog sëriñ Mara Seck dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi sëriñ bi ñoo ngi lay jaare aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi sarax li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara fa tabaarakallah haaji dégg ak haaji madun ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di ñaan ci yàlla suñu nuyoo ak suñu ziara mu fekk leen ci jàmm du nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi ñuy bàyyi xel ci seen site bu am doole bi di Mprod kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la ziara fa tabaarakallah suñ Mara tey boo xoolee euh, ñu bëri naw lañ la nawloo nañ la ci sa wàllum njàng ñu bëri xam nañ ne borom xam nga ñu bëri xam nañ ne dox nga te dem nga ci dëkk yu bëree bëri peeg nga mboolem euh, fànnuy xam-xam yi xam-xam yaatu xam-xam nekk loo xamante ni toll nañ foo xamante ni nit ñi léegi dañ ko bëgg a fawee da gis nit sax muy taxaw naan dafa yor ay jinne te ndekete ay xar sax xamul nu mu euh, mel. te alxuraan la fi yàlla bàyyi woon te alxuraan la fi yonante bi bàyyi alxuraan nekk lu gën a gaaw ci faj aajo jàmm. fa tabaarakallah xaasi lii nga laaj am na solo lool euh, dama ne wax bii nga wax rek mën na tënk émission bi dégg sëriñ Mhm. tur bi nag mën na yomb lool waaye sëriñ yombul mhm. te sëriñ dafa am ñaari fànn yu ñu koy tuddee mhm. mooy bi ci nekk mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci wàllu ñaan lasraar ñu tudd leen sëriñ ak ñi nga xam ne tamit ay doomu soxna leen ñu tudd leen sëriñ ñu dajawaat tamit doomu soxna bi tudd sëriñ ba pare nekkaat di ñaan tudd sëriñ kon bokkut ak ki nga xam ne daf ko neex rek mu jékki-jékki ñëw na ci lii ak lii kon moom heure bu ñu daje rek du ñu bokk xam-xam damay wax jamono bu ci nekk rek ñàkk xam-xam mënul weesu nga xam rek li ci téere yi waaw bu fekkee ne sax xam-xam li ci téere yi rek la ne kon man nga ne xam nga mais amoo xam-xam xam dëgg da ngay xam li ci téere yi xam li ci ginnaaw téere yi ah, waaye nit ñi am naa jinne am naa ay nangam am naa ay nangam nit wala boog du ma ñëpp sax parce que boo ko defee da ngay tooñ waaye ñi ci ëpp ku jinne ñëwoon sa kër nga daw loolu man maa la ko wax Sénégal nag kuy wax wax ju lañu xam <laughs> waaye jinne moom nan ñaan yàlla bu leen jinne ñëwal donte na sax doomu aadama moo gën a foor jinne doomu aadama amul lenn lu ko ñeme ci àdduna parce que mooy xalifa fii ci suuf kon amul lenn loo xam ne moom ñeme na ko ci ci àdduna waaye jinne yàlla daf ko may pouvoir boo xamante ne ni mën na di mën doomu aadama mënul mën na soppi sama jëmm ji ñëw def ko sa jëmm yow def def ji ma le def defi leneen ñëw ñu ne sëriñ bi la fekk na boobu maa ngi sama kër waaw moo tax am ay jinne yoo xam ne ay jinne shayaatine la moo tax xam-xam moom képp ku koy fooy rek na nga xool ne sa mujj moom a ah, fa tabarakallahu dina doy waar lool. waaw ci li nga wax léegi ci kilifa ñaan yàlla taxul nit ki mu nekk kilifa. kilifa yàlla moo koy def doomu aadama. du ci am-am. du ci daraja du ci dara yàlla mooy xool nit ki def kilifa te dama seetlu Sénégal dañuy jaawle kilifa ak njiit kilifa yàllaa koy tànn njiit nag doomu aadama yi ñoo koy tànn kon nañu xaajale loolu xam ne kilifa yàlla moom moo koy def nit waaye njiit nag moom doomu aadama yoo koy tànn nit ñi nag dañuy jaawle njiit ak kilifa loolu dama ne woon naa ko ci sóoraale pour nit ñi bàyyi ko xel incha allahu taala. sëñ bi euh, dégg naa ci sa benn waxtaan nga ne ma aajo ju nit ji am nit ki aajo bu mu am bu ñëwee ma faj ko te duma laal jinne du ma jëfandikoo lu ñuul nga ne ma lu leer laa yor te ci lay fajee aajo jàmm. dëgg man surtout tafsir Ibrahima Seck la nekkoon xaritu Serigne Baara Mbacke nekk mu xaddam bu mag ci tarixa Cheikhuna Tidiane yi dégg su ma nee allahuma yàlla bañ ko ma xam li sama maam nekkoon du dëgg ma dagg sama kurus ne ci leneen dama ne su ma newoon ci leneen tamit teewul nit ñi dina ñëw yëkkati seen alal di ma ko jox naan ma sëñ bi ñaanama ci yàlla ndax li may wax sama waajur mi ngi dund bari na kilifa yu ma xamul ci Tiwaawoon ak tuubaak ak Njaasaan ak fu ne euh, kër Seydina Isaa nu laay ci yoof dugg naa fa xëlwa boo rombee kër gi rek da ngay def gauche ba ci eh, kër sëriñ Mor euh, Sow sama xarit la def naa fa six mois ba Seydina Ousseynou Laay billaahi lazi laa ilaaha ñëw sama kanam ne nan laay def ba nga bokk ci sama njaboot bi barki Cheikhouna Tidiane waaw dégg ah, ne nit ñi jàngi waaye jagle ah yemul ak dara danoo juddu fekk xam-xam mand ci xam-xam moo tax daanaka yenn saa yi nit ne sëriñ si sëriñ si ma ne leen man ak ñoom sax waxuñu sax école bay bokk récréation. Mhm. bokkuñu école bokkuñu classe bokkuñu ay professeur mais sëriñ si nag fi ñuy rawantee bokk na ci mën a seet parce que jamono ji dama wax naan man sëriñ bi ma gën a fan ki ma gën a naw mooy sëriñ bi mën a seet. parce que médecin yi tamit boo demee ñu xool la ne la euh, lii moo dal loolee day am mais sëriñ tamit bu xoolee ba ne lii moo am loolee dafa war a am sëriñ dafa war mën a seet avant waaw sëriñ dafay seet waaye man baat bi dama koy dàq man liss xaar laay def waaye dama naan képp ku mënul xam lan lay dund ca malaal axla mën a wax aaju nit wax nag loola neex mën a nekk wala sa xalaatu bopp waaye wax nit ki xaqan loolu xaar moom moo la ko mën a jox mm-hmm. waaw xam nit ki fi mu toll ak fa mu jëm la paase nag jëru nga di ko wax nit ndax loolu dund na ko te àdduna loolu moo fi nekk ci li nga paase ci li nga toll ak fa nga war a fa nga war a yegg moo tax euh, man yàlla dogal na du seet list xaar laay def képp koo xam ne nag da ngay seetlu nga dem ci ñay seet man li ma dond ci samay maam ci laa ne pettaawuma suufuma ndoxuma list xaar laay def différence bi entre seet ak list xaar waaw yonent bi list xaar la ñu dégle waaw bu ngeen amee soxla wala aaj ci lu ngeen di dugg maa ngi leen sant ngeen list xaar ko hmm. waxuñu ñu seet bu doon seet kon ma seet waaw bu doon seet kon seet laay def man sëriñ Mara seetuma listixaar laay def ku bëgg a seetlu nga dem ci kay seetlu te listixaar mën naa la ko listixaaral ñetti fan ci laay man ñetti fan laa la koy listixaaral du ma la listixaar benn fan rek laa aajo yi ñetti fan la listixaar yi di man amul benn listixaar booy def benn fan na leer listixaar ñetti fan nga koy laaj suñu borom mu soxla wan <laughs> bu la wanee ci ñaar yi mu dëppoo xamal ne lool bu la wanee nag ci ñett yi mu dëppoo nag da nga koy sàkkaloo sarax sàkk sarax yow mi koy def sóobu waat ci mbir mi. sëñ Mara Seck tey mag ña dañ daan jur euh, doom di jur di jur di jur dem ba am sax presque quatre-vingt et quelque ci at di am doom gis naa fi mag ñoo xamante ni dem nañ ba am euh, quatre-vingts ans di am doom mais léegi loolu lu jafe la xaw ma ndaw ñi ñoo mën a foo xaw ma doom dañ ko euh, bàyyee jox mag ñi xaw ma nit ñi néew kàttan moo leen sonal. <laughs> waaw loolu day moom doy na waar waaye jamono dafay dox am yu ci baree bari yu ci soppeeku ndax li amoon ci mag ñi amutoon ci suñu jamono ji euh, jamono ji mooy yàlla bi bari na musibe yi bari na te am réew heure bu demee ba mooy yàlla bari ci rek yàlla dafay wàcce musiba ci jaam ñi wala am mbas moo xamante wala ak tumuranke wala fitna boo xam ne nit day nit ki day toog sax di tiit def dara yàlla mooy roof yooy xoli euh, doomu aadama yi nit ki di tiit te def dara li koy waral mooy bakkaar bu bari ak mooy gis nga nit ki euh, mënoo di mooy yàlla tout le temps di am lu la neex mënul nekk nit ki mën nga bëgg doom nga ñaanlu waaye ilaa nga dem ba am yenn at yi mënatul sa bopp dara dama ne nit ki la nga jàppoon ba bàyyi ko leneen loolu ci fekk yow yaa ko sa bopp. nanu dellu ci li fi maam yi bàyyi woon. waaye léegi waxuma la sax quatre vingt kii yi nga wax waaye cinquante ans yi quarante ans yi rek am na si ñoo xam ne fa tabaarakallaa ñi la koy jooytu bari na lool. waaye li ma ciy waxit daal nañu faju ah te xool tamit dem ci hôpital yi ndax am na ci loo xam ne sëriñ du ko faj. sëriñ bu ne la da koy faj mu dafa ko neex rek am na loo xam ne hôpital moo koy faj. sëriñ mënu ko faj. waaw néew doo ci kii. non damay faj néew kattan. waaye dama ne am na ci yoo xam ne sëriñ du ko faj waaw li différence bi nag mooy da nga ñëw nit li listixaaral la xam lan la bu fekkee ne rab moom moo ko def wala jinne wala dañ la takk xala wala dafa am Euh, da nga dem ba di njaalo di njaalo ba sa ndoxu yu wàññeeku yooyu am na ay plan combustion boo xam ne boo ko defee rek yàlla mën na la ci defal tawféex waaye am ci yoo xam ne nag koy rajo moo xam nu nañu ciy bàyyi xel bu baax a baax boo demee ci sëriñ saafarawul demal hôpital wala nga njëkki ci hôpital bu xoolee gisul dara nga xam ne li garabu sëriñ la nga dem seeti sëriñ fa tabarakallah euh, sëñ bu fekkee nit la koo xam ne dafa bëgg wërsëg wërsëgu mu jaral ko mu ne man duma jëfandikoo lu ñuul du ma jëfandikoo sunguf li may jëfandikoo mooy alxuraan ak lu sell ndax alxuraan jooju gaaw na ci def nit milliardaire wala gaaw na ci nit def ko millionnaire. <laughs> dégg mim réew ak koo mën a doon ci mim réew ak bitim ak foo mën a ne loolu boo ko bëggee foo man di wër fii ngay teersee dama suñ émission yi ci ginnaaw wax naa ko fi <laughs> alal mm. ah dégg ubbee ko moom barke Cheikhu Tidiane foo mën di wër fii ngay teersee waaw loolu moom awma lu ma ciy sikki sàkk foo man di dem ubbiku rek am alal li nga bëgg moom lépp di dox foo man di ne fii ngay teersee waaw dég du ne allahuma yàlla di ko rejeté heure bu ñu gersee suñu bàyyi mi suñu wet heure boo ko déggee téléphone mu ne la ah rek te ne ci yoonu siraatal mu sax heure boo gersee ñoo ngi sa wet fàttaliku ma man fu ma ñaanee yàlla te nanguwul waaw donte nag xam naa ne samay at li ci ëpp yàlla laa ko jox 12 mm-hmm. ans laa def ci daara ñëw toog sama kanamu papa di ko bindal ak di ko doxal course ak di ko yóbbu leen dee bu ko mooy boorek taalibe bi ma di leen sangat ba mu jox ma ndigal te ba mu may jox ndigal sëñ saale woo ko heure bu ci tollee jox ko ndigal kon man jóguma ci loolu kon man naa ne samay at li ci ëpp yàlla laa ko jox kon moo tax gëm naa ne du ma ñaan yàlla yàlla di ko rejeté. di leen fàttali ne numéro sëñ Mara Seck yi mooy numéro yooyu affiché ci suuf écran bi ah, njëkkee nag da cee am boo xamante ni dafa réeroon ah, bi mu demee Sonatel fekk identifié identifié wuñ ko woon ci ah, turam kon numéro boobu doxul ñi nga xamante ni doon nañ jëflante ak moom te toogoon ab dégguñ ko looloo war loon déggu leen ko numéro yi mooy numéro yi nga xamante ni moom la yor mooy affiché ci suuf écran bi kon képp ku ko gëj a rek mën nga koo woo ci numéro yi sëñ bi bu dee nit ku bëgg dégg tamit dégg naa euh, côté boobu tamit yàlla am na lu la ci may. waaw dégg papiye damay wax jamono bu ci nekk rek euh, da cee am ñoo xam ne lu ne mën na yomb ci ñoom am loo xam ne lu ne mën na jafe ci ñoom mais dama naan ñaan yàlla lum deful amul. rajeunir nit màgget na sax ñaan yàlla rajeunir roog mu nekkaat xale. boo xoolee yonente yàlla Yusuf ak Suleyxa dafa dem ba nekk mag. mu ñaan yàlla yàlla delaak mu gën a rafet comme ni mu meloon mu yàlla mur ay bëtam mu ñaan yàlla mu xooloo ko kon dama naan papier moom ah, wax nañ ko waxati ko moo tax duñu ci duñu duñ ci yàgg ku ñu ci yàlla boole incha allah ah, buñ la waxee sart yi ni nga koy defee rek incha allah rabbi amal yaqin bu baax na li nga bëgg dina am ci kàttanu yàlla. li ma jaaxal bokk na ci léegi nit ñi dañuy bëri alal mais yàqule daf leen yomb lool yàqule bi nekk ci dëkk bi tamit doy na waar de boole nga nit tey ñee ko suba nga gis ko yéene ko sarax <laughs> waaw dégg loolu dina bari dama ne chaque ñaar fukki at. Mhm. en général alal yi day tuxu day jóge ci ay loxo dem ci loxo yi ñeneen chaque ñaar fukki at. Mhm. alal dafay tuxu te doomu aadama yàlla daf ko bind mu nekk koo xam ne day jebbi ak di ruus. Mhm. waaw moo tax jamono bu ci nekk rek damay wax ne alal da su koy ñàkk te bari na ñu ko yàlla cëralee du ñu nelaw guddi ñu ngi ci fitna moo tax na ñu dem defar ji seen bopp wala ñu ngi tawat wala seen ak njaboot ñu ngi tawat goo xamante ne nii ñu ngi ci fitna moo tax nañu dem defari seeni bopp parce que lu ko mooy rek ah, mën na doy waar lool waaw mën na doy waar woor kon moo tax ah, ak lu mën a xew rek ah, bu ñuy bàyyi ba am problème soog di ñaan lu ji yàlla yàlla buy neex da nga koy woo su naqaree boo ko woowee mu wuy la waaye buy neex nga fàtte ko ah su naqaree tamit boo ko woowee yàlla moom ko am fulla la moo tax heure buy neex rek fa tabaarakallaa na sant yàlla kon heure boo jaaxle rek soo ko woowee incha allah dina ñëw. am na vidéo buy circulé noonu euh, mu nekk loo xamante ni fan yii mi ngi circulé ci réseaux sociaux yi am femme bu taxaw euh, ciblé benn sëriñ ne sëriñ bi daf ko takkoon takku suuf sénégalais nag am na ñoo xamante ni nee nañ femme bi dañ ko yónni am na ñeen ñu ne femme bi li muy wax dëgg la. lay dëgg nag yàlla rek moom moo ko xam mais en tout cas Sénégal li fi xew tamit doy na waar mbirum takk suuf sax la doon expliqué di ko wax te euh, ki mu koy wax kenn la ci seen naw lay sëriñ si kon en tant que sëriñ yaakaar naa lool tamit am nga ci kàddu goo ci war a mën a sànni. waaw dégg euh, dinaa ci wax waaye dinaa tontu benn wax ci bi nga wax ne seen naw lay sëriñ la man fii awma ko fii nawlanteel ci sëriñ. waaw xam moo tax. Euh, dama juddu ci sëriñ ci baay maam. ci baay juddu tamit ci tarixa Cheikhuna Tidiane sama maam nekkoon mu xadda bu mag ci tarixa Cheikhuna Tidiane ndigal a tax may def lii waaye manoon naa ko ba toog ci sama kanam wéju wala ma toog lu ma soxla taalibe yi jox ma ko kon nawlonte wu ma ak ñoom bu doon loolu kon ñoom li ñuy def chaque jour nga gis leen ci internet bi kañ laa ngeen ma gëj a ak man jotaay ñaata weer ma nekkuma sax ci yooyu nawlonte wu ma ñoom bokkuñu école bokkuñu classe bokkuñu sax ay professeur yenn saa gis naa fi ñoo xam dañuy jékki-jékki xëppoo ay ndox dañu ma liggéey ay nangam nangam nañu ba loolu site bii di ngeen fi gis sëriñ bu ngeen di def émission mu simmeeku laa la wax. nañ ba seen caaxaan hmm, ay xaw ma man ay théâtre xaw man daal na waar daal nañ ba seen caaxaan sa jaamu ci yàlla. waaw ay simmeeku dañ ma liggéey dañ ma def nangam lépp ay kàcc kese ak ay nar nañ ba ci liggéey nañu bàyyi loolu ah nañu bàyyi loolu. Ah, ci loolu nga wax di euh, kooku ñu takk takk suuf ah, bu fekkee ne day lu am la mbir la boo xam ne rafetul waaw ndax euh, amas yoo xam ne daanaka musiba la ci nit ñi waaw ndax euh, koo xam ne chaque weer bu ci nekk ñu dégg la ci ay mbir yu do yu mel noonu dafay xaw doy waar daal mm-hmm. waaw dafay xam a xaw a doy waar moo tax boo ne kilifa dama naan kilifa ak njiit bokkul kilifa yàlla moo koy def nit kilifa du sàcc du tooñ yàlla njiit nag mën na sàcc mën na tooñ yàlla lu ko neex def waaye kilifa yooyu yëpp du daje ci moom ndax lan yàlla moom moo ko def kilifa waaye kooku daal loolu muy def bu fekkee lu wér la ah léeru ma nag waaye comme dang ñu ci laaj dañuy wax rek bu fekkee ndaw si dafay wax rek ah, na bàyyi loolu ndax asgor kenn du ko tuumaal bu fekkee tamit waaw bu fekkee ne tamit euh, loolu ñu ko waxal moom la ah moom tamit ah, ah, jigéen tamit kenn du ko toroxal am na loo xam ne bëgg lu la neex rek a ah, bu mu tax tamit ngay def musiba ndax lu baax moom doomu aadama mënu ko soppi mukk ak pexe mu mën a def waaye lu bon tamit doomu aadama mënu ko baaxal mukk ak pexe mu mën a def kon ak lu mu ci mën di doon rek ñoom ñaar ñoo xam ku ne ci dëgg waaye kenn ku ci nekk ci dëgg daal bu déggee sama kaddu gi ci ni ma ko waxee daal maa ngi sàkk mu jëfalee noonu incha allahu taala. sëñ Mara Seck lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV. Euh, di leen sant bu baax di leen gërëm euh, dégg ak Hadji Madoun ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar fa tabarakallah euh, di nuyu Serigne Pape Abdou Sy moom tam maa ngi koy nuyu baax di la di ko ziar ak Serigne Moustapha Mbacké maa ngi koy nuyu baax di ko ziar di nuyu tamit soxna Mari njaay France moom tamit maa ngi koy wax xam naa ne woo na ma ba sonn mënu jot su yàlla dogalee moom tamit euh, bu ci kii rek incha allahu rabbi mën na ma woo ci numéro boobu incha allah ñu ngi leen di nuyu baax di nuyu soppay taalibi yëpp fa tabarakallah axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah yaakaar na lii nekk na mbir mu uh, yéeme nekk na mbir mu doy waar muy uh, waxtaan wu am solo bi nga xamante ni Serigne Mara Seck waxtaan na ko mu nekk waxtaan woo xamante ni uh, yegg na ci xol ndax waxtaan wi lépp dëgg moom moo ko lal. numéro téléphone nu Serigne Mara Seck mi ngi noonu affiché ci suuf écran bi képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk ñi doon topp duñu ñu suivre ci improtive TV yàlla ngeen bëri jàmm ci dara daraja Muhammad Rasulullah